alhamdulilah walsalaatu walsalaamu ala rasulillah wa ala alihi wa asxaabihi wa man walah amma baad mbokki jullit yi noo ngi sant sunu borom tabaraka wa taala di julli ci ab yonentam di ñaan mu dolli koy xéewal ak i saxaabaam ak képp ku ko topp ba kero bis penc di taxaw di fàttalente ci fan yu tedd yi nu toll muy fan yi gàddaayug yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jóge Màkka dem ngir diineem niñ ko waxe woon ci xutba bi weesu bàyyi léppam bàyyi fa mu gën a bëgg te fekk diine rek moo tax fan yooyu ak la ca tegu gannaaw ba lépp doon ay bind yoo xam ne bind yu dul jeex la bi nga xamee ne jullit yi gàddaay nañ ba dem Madina ñaari xeex yi gën a siiw ci lislaam muy diggante jullit yi ak yéefar yi gannaaw boobu la am ndax la jiitu loolu jullit yi dañ leen doon tooñ di leen lor waaye digaluñ leen woon ñu fayu biñ gàddaayee ba dem Madina ca la xeexu Badar jëkk a amee la ca xew xew ca yàlla jox jullit yi ngañaay seenub lim néewoon lool limub seeni noon bari woon lool ñu teg ca diir bu néew yéefar yi àndandoo ñëw Uhud daje jullit yi jullit yi booba seenub lim gën naa bari ñu daje yéefar yi ñu gañe jullit yi ngañaay loo xam ne lu metti la bi nga xamee ne jullit yi gañe nañ leen gañaay lu metti yéefar yi gañe nañ leen ñu rey ci jullit yi juróom-ñaar fukki shahid yoo xam ne foofa lañ saaye muy faatu ci yoonu yàlla jullit yi daldi yéemu lii nan la mën a wàcce ci nun ànd ak ne nun noo nekk ci dëgg nan la mën a ame ab noon boo xam ne yéefar la kuy bokkaale la kuy xeex yàlla la di xeex ab yonentam gëmul yàlla gëmul àllaaxira yéefar bu mel noonu bañ yàlla bañ ko lool di ko xaare ay mbugal yu metti dig ko ko itam ci àdduna ak ci àllaaxira yéefar bu mel noonu nan la mën a gañee jullit bu nekk ci lislaam nan lañ mën a gañe ab armée boo xam ne yonent bi yàlla baa ngi ci biir ba ñee loru sax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam deretam tuuruwaale ci jullit yi yéemu nu mu mënee am armée boo xam ne al mubashiruuna bil janna muy ñeenti xalifa yeeg ñeneen ñi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon ñépp ne ci waa àjjana lañ bokk ñu ngi ci biir armée boobu alsaabiquuna al awaluuna min almuhaajirina wal ansaar mu ñi jëkk a dimbali lislaam gën cee jëkk cee taxaw te gën cee taxaw keneen ku dul ñoom ñu nekk ci biir armée boobu ñu gañe leen ñu ne loolu nan la mënee am te ñooñu ñooy ñi nga xam ne borom bi tabaraka wa taala tagg na leen tagg yoo xam ne mosu koo tagg keneen ci alquran te teewul ngañaay ñëw wàcc ci seen kaw ñu gañe leen jullit yi yéemu naka la loolu mën a amee borom bi tabaraka wa tontu leen awalamma asaabatkum musibatun qad asabtum mislayha mu ne ah bi nga xamee ne musiba wàcc na ci seen kaw musiba moo xam ne yéen tegoon ngeen keneen musiba mu ko ñaar ca musiba mu wàcc ci seen kaw tey mooy rey nañ ci yéen juróom-ñaar fukki nit waaye nag leneen jiitu woon na ko mooy xeexu badar reyoon ngeen ci ñoom juróom-ñaar fukk jàpp ci ñoom juróom-ñaar fukk ay prison kon qad asabtum misleyha yéen gañewu ngeen gañaay lu ñaar ca loolu waaye nag bi ngañaay ñëwee ci seen kaw qultum anna hada yéen a ngi laaj di wax ne lii nu mën a ame borom bi tabaraka wa taala ne qul huwa min indi anfusikum ci seeni bakkan la jóge ngañaay li su amee ku bone noonu mën a dal ci kaw ku baaxe ne yéen gañe leen am na feebar bu tàmbalee nekk ci seeni bakkan gaaw leen kon mbir mi jógewut fenn borom bi tabaraka wa taala day dimbali yonentam day dimbali diineem day dimbali nit ñu baax ñi waaye ci kaw ñu jaar fa mu bëgg su jàdd tàmbalee am rek ngeen tàmbalee gis qul huwa min indi anfusikum ci seeni bakkan la tukkee yàlla nag lu ne moo ko man teg ca ne bis ba nga xamee ne daje ngeen la xew seen diggante loolu borom bi tabaraka wa taala doonut lum ñàkk a yëg te bu ko neexoon it leneen mooy am waaye nag lii la jublu mu am tey mooy ñu gañe leen dal ci seen kaw lor leen rey juróom-ñaar fukk ci ñu gën a baax ci yéen damm bañub seenub yonent lor ji jéggi dayo mu ne yëg naa ko fa bi isnillah wa ma asaabakum yowma altaqa fa bi isnillah yàlla yëg na ko ngir mu xam ci yéen nag kan mooy boroom ngëm gu dëggu ba tax mu daal di mën a defaru soppiku wali yaalama alladina naafaqu mu xam itam kan mooy koo xam ne àndul ak ñii àndul ak ñee nekkul ci lislaam bàyyiwut fu gañe rek mu ne maa nga foofa am na ci nit ñi ñoo xam ne loolu mooy seen melokaan ñaari kuréel yi buñ jàppantee dañuy taxaw di xaar ku gañe rek ñooñu lañ àndal borom bi tabaraka wa taala tey bëgg na na ñu xàmmee kan mooy jullit dëgg ak kan moo ànd ak naafeq yi kon boroom bi tabaraka wa taala foofu la joxe bind lan moo xew booba ñaari yëf xew na yoo xam ne benn bu ci ne benn bu ci ne boroom xam-xam yi nee nañ moo tax loolu dal jullit yi dal leen benn bi moo di ca Badr bi ñu reyee juróom-ñaar fukk jàpp juróom-ñaar fukk ci ñoom yonent bi sallallahu alayhi wa alihi dafa diisoo ak saxaaba yi juróom-ñaar fukk yi nuñ leen di def prison yi Omar ibn al ne ko nañ leen rey Abu Bakr as joxe xalaatu bañ leen rey lu bari ci saxaaba yi ànd ci xalaatu Abu Bakr yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ànd ak ñoom bi loolu weesoo alxuraan wàcc boole leen ñoom ñépp yedd ne leen li Omar ibn al waxoon loola moo jaar woon wa ma kaana li nabi an yakuna lahu asra xata yusxina fi lxarb ab yonent sëñ te jàpp ay prison di denc ginnaaw xeex la rek jaamaarloo koo mën a rey reyal loolu la ko sant bi loolu amee yaraa nga ñëw joo xam ne ñañ yàdd yonent bi ci boppam mu ngi ci seen biir ànd ak ne mooy yonent bi kon nga xam ne borom bi tabaraka wa ci mbirum diine su fekkoon ne maslaa am na ci walla làq-làqal yonent bi alayhi salaatu wasalaam lu mel noonu bu wàccee ci moom kon moom mën na koo denc waaye alxuraan jooju wàcc na ci moom jàngal na ko nit ñi ñu xam ko ngir ñu xam ne yaraange du weesu waaye beneen bi nga xam ne nag moo tax musiba mi am dëgg-dëgg mooy bi xew ci xeex bi ci boppam moo di yonent bi alayhi salaatu wasalaam bi mu digalee ñi ñuy tudde ar-rumaa muy armée bi nga xam ne ñoom la yéegloo woon ci kaw montagne bi ne leen bu leen wàcc mukk ak lu mën a xew wutal leen amir ñu ànd ak moom mu ne leen bu leen wàcc yéen bi ñu séenee jullit yi ak yéefar yi tàmpoo xeex bi tàmbali jullit yi gañe ñu gis yéefar yi daw sànni alal yi ñu yoroon sànni lekk yaag ñam yaag yàpp ya ak ngànnaay ya di daw jullit yi di leen dàq fekk yonente bi alayhi salaatu wasalaam nee na leen woon bu ngeen gisoo ni malaayika di wàcc di fab yéefar yi sax bu leen wàcc xeer wi yéen taxaw leen foofu biñ gisee loolu ñu jékki-jékki ne nañ wàcc jël ci ngànnaay yi ak yi nga xam ne yéefar yaa ngi koy Zubayr mi nga xam ne mooy seen jiit mu ne leen déet bu leen fàtte yonente bi alayhi salaatu wasalaam li mu leen waxoon nee na woon bu leen wàcc ñu ne ah léegi de comme que gañe nañ mën nañoo wàcc daal wàcc naka ñu wàcc xeer wi rek dugg ci biir xur wi tàmbali di dajale ay xéewal mooy la borom bi tabaraka wa wax ne minkum man yuridu dunia wa minkum man yuridu alaxira am na ci yéen ñoo xam ne àdduna lañ bëgg am na sax nag ñoo xam ne alaxira lañu bëgg waaye am na ñoo xam ne àdduna lañ bëgg kon wàcc googee di fab ca ngànnaay ak xéewal yi sax bëgg àdduna lu ko suñu borom tabaraka wa tudde ndax la ca gën a rëy mooy bàyyi ndigalul yonent jëm ca loola mi ngi ci naka ñu wàcc xeer wa rek Xaalid ibnul Walid ak armée ba mu àndaloon ñu monte ci kaw xeer wi ñoom fekk mi ngi làqu woon ca gannaaw booba duggagul ci islaam naka ñu yéeg ca kaw nag tàmbali rek di fett xeex boo xam ne xeexu fett la ku la féete kaw rek moo lay gañe naka ñu tàmbali di fet jullit yi geesu seen leen ñu ne ci kaw xeer wa ñu wàññi ku bëgg a jëm ci ñoom noon ya doon daw xool seen ne armée moo ne ca kaw ñu wàññiku ñoom itam jub si jullit yi ci biir loolu nag foofu la mbir ma xewe moo di séq nañ leen ñu nekk ci diggante bi Xaalid akub armeem ña nga ca kaw ñiñ doon dàq wàññiku nañ ñoom it ak seen i ngànnaay jàmmaarloog ñoom foofu la la xewe xew lépp boo ko seetloo mu dellu ci benn tomb yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne la defal nga bañ a def kon yar boobu ñi yar xeetu lislaam ñu baax ñooñu nga xam ne ñoo gën ñépp ci kaw mooy ndigalu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bu ñu yaakaar mukk ne borom bi tabaraka wa taala mi nga xam ne moo leen yaroon du ba léegi nam mooy ndigalu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam réye woon du noonu la réye ba tey kon ma ne jullit yi suñ toogee ba mu yàgg nu gis ay musiba yu rëy di wàcc ci kaw xeetu lislaam musibam seeni noon tuutal leen yab leen ñi gën a suufe ci bindeefi yàlla yi ñi nga xam ne ñooy nooni yàlla di nooni malaayika yi di nooni yonent yi dem ba yab jullit yi di xotti seeni orma di dal ci seen kaw di leen faagaagal di rey seeni jigéen di nangu seeni kër di ko màbb ak seeni gone dem bay doyadal seenub yonent comme ni ngeen ko gisee ci fan yi adduna ak li ci biiram ak ñi ëpp doole taxaw di seetaan ndeg nekkuñu di reetaan ca suuf suñ gisee loolu wal war wëlbatiku xoolaat suñ bopp ndax laaj ba day delsi ah ndax du nun nooy jullit yi ndax du nun noo yore alxuraan ndax du nun noo yore kaaba gi ndax du nun nooy xeetu muhammad sallallahu alayhi wa sallam ndax du nun nooy ñi dëkk ci béréb sàngam nit ñu baax ña fa nekk comme ni ko nit ñi faral di waxe ndax du nun ndax du nun ndax du kenn ku nekk day mën a tontu ma ne tontu li day dellusiwaat ne qul huwa min indi anfusikum xoolaat leen seen bopp mbokki jullit yi buñ xoolaate suñ bopp danañ gis gàttañ lu gu baree bari ci wàllu càggante ci wàllu ay bàkkaar ci anam goo xam ne su xeetu lislaam góor-góorlu wut delsiwaat jiima saafara melokaanu suufe wii ñu nekk ci li war seen diggante ak seen boroom seen diggante ak seen diine ma ne kenn xamut lan mooy wàcc ci kaw xeet wi te xeet wi laaj na jotoon na bu yàgg ñu yeewu kenn ku ne ci noonu war naa ma delsiwaat war naa ma góor-góorlu ci jàng diineem ak xam ko ak soññee ci rawatina ndaw ñi nga xam ne ñooy mébétum xeet wi ñoom la ñuy séentu ci ñoom ñu mën a baax mën a baaxal ëllëg mën a def lu am njariñ loo xam ne waa àdduna dañ ci mën a jariñu ëllëg mu jariñ leen ci àllaaxira ndax danañ am ngërëmul yàlla am ngërëmul yonent bi sallallahu alayhi wa xeet wi luñ la mën a wax feebar na képp ku xool ci gàttañ lu googu ci yooyu ma tudd dana am njàqare ci ne buñ fajuwut xeet wi ñëw ci kanam kenn xamul lu ñuy mel kenn xamul lu ñuy mel su fekkee ñi toll fii ñoom ñoo mel noonu war a nekk génération bi tane kon bu fekkee sàggan nañ ñoom ba yaruñu weneen xeet woo xam ne xeetu alxuraan la ñuy doon xeetu sunna la ñuy doon ma ne xeet wi ñëw ci kanam kon kenn xamul lu ñuy doon ak lan mooy wàcc ci seen kaw ci balaa kon fawuñu saafara tawat yi te tawat ji gën a rëy ci tawat bi wàcc ci kaw xeet wi tey mooy feebaru réer réere mbirum diine réere yàlla réere ab yonentam yéene réere diineem te réer ak ñàkk a xam loolu warta bokk ci melokaanu jullit ña ko yeyoo woon ci cosaan ni ko alxuraan di nettali mooy yéefar wala naafiq borom bi tabaraka wa taala nee na walakin al munafiqina laa yaalamuun naafiq nee na du xam du am xam-xam walakin al munafiqin laa yafqahuun du mën a dégg diine waxaat yéefar yi ak bokkaalekat yi melal leen ba noppi ne dalika bi annahum qawmun laa yaalamuun ñooñu ay nit lañ yoo xamuñu kon ñàkk a xam ak ñàkk a dégg diine ca cosaan yéefar ak naafiq ñoo ko daan melo waaye nag doon jullit boo xam ne ku bëgg diine nga bëgg yàlla bëgg yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mu jaral la lu ne ba noppi jàng diineem ak xam lu ko jaralu la dara wala loo ci xam lu tuuti tuuti daal di jàpp ne yow xam nga kooku ma ne musiba la moo xam ne mu wàcc ci xeet wi la léeg-léeg nga dégg koo xam ne day wax di melal boppam di wax ne man jàng naa alxuraan jàng naa alxuraan ndax ba ma nekkee xale dañ maa dugaloon daara door maa dugal door maa dugal école boo ko laajee lu mu xam ci alquran wenn saar wum la mën a tari bu ko defee du ca mën a teg weneen nam koy taree yàlla moo xam nu muy doon waaye teewut jàpp na ne moom jàng na alquran te nag du yem foofa waaye boo yeexee lu la jaaxal ci diine boo ko ci laajee mën na la caa tontu jëfandikoo xelam kon nasalullah al afiya mbokki jullit yi jamono yoo xam ne dem nañ ba jullit bi ñi rey ci xolam yëg-yëgub ne jullit jullitay mbokkam yéefar mbokkam yëg-yëg boobu jamono yi bu ñu ko demee ba rey ko ba mën a dem ba am ci jullit yi ñoo xam ne yëgal nañu leen ne kudul jullit ak jullit ñoom ñëpp suñ baaxee rek ñu baax lañ c'est-à-dire suñ baaxee ci wàllu jikko ñoom ñëpp ñooy am amaana sax nga dégg ci ku la mën a wax ne mën nañoo dem sax ñooñu ba dugg àjjana ñu topp ñu yoonu muhammad sallallahu alayhi wa sallam su fekkee ñàkk yëg gi dem dafa àgg foofu dem ba feebar bi àgg ci jëmmi jaamu yàlla ci boppam doomu aadama mën a yaakaar ne doomu aadama mën naa am cër ci di jaamu keneen ku dul yàlla moo xam nit la moo xam alal la moo xam bànneex la moo xam daraja la ndax jaamu dara weesuwut jël la yàlla yooyu woon jox ko ko su fekkee dem nañ ba feebar bi àgg foofu feebar bi dem ba àgg ci jullit mën a tuddoo jullit di dund ci lislaam di dem ci jàkka di julli ba am juróom-ñaar fukki at wala lu ko ëpp te alxuraan jéemut a xam li alxuraan di wax lum mu jéemu ko settantal jéemut a jël ay jëfam di ko peese ci alxuraan ba xam baax na wala baaxul ngir mu mën a xam lu muy def ak lu muy bàyyi lu muy bëgg ak lu muy bañ jéemu te jël alxuraan di ko jëfe ci ay jëfam ak ci ay waxam ak ci wooteem jëme ci yàlla su fekkee xeet wi dem na ba àgg foofu kon li ko doon protéger bay dox digganteem ak néew doole loola dafay daal di néew doole armée bi ko doon aar muy kattanu imaan bi nekkoon ci xolam daf koy daal di doyadal su doyadee nag bunt yi tàmbali di xottiku buntu xottiku fii bokkaale ñëw ñu tàmbali jaamu keneen ku yàlla beneen buntu xottiku biddaa ubbiku luñ for rek boole ci diine ji ya ca bokkoon dëgg-dëgg nag boo ko indee sax ñu defe ne loola bokkatul ci diine ji ngir fàtte nañ ko weccee nañ ko yeneen beneen buntu xottiku ak doya di dikk aku nangoo suufe ak nangoo ñàkk fulla ci sa diine loolu ma ne su demee ba dal ci xeet mi ci loolu la yeneen xeet yi ci des bi ñëwee nag tàmbalee doya dal xeet bi nag ak di ko suufeel loolu moo waral yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci xadis ba mu ne woon jamono ngi ñëw xeet yépp danañ àndandoo yab leen dal ci seen kaw songandoo leen comme ni nga xamee ne lekkkat ya dañuy songee noona ndab la suñ tegee ndab nit ñu xiif ñi kenn ku nekk nañuy àndandoo ñëw raxasu sukkandoo benn yoon nee na da di dem ba xeet yi def leen noonu ñeneen ñi yéefar yi kenn laaj ko ne ndax bu boobaa dañuy gën a néew ñu gën a bari looloo koy waral dana mu ne déedéet su boobaa bari ngeen lool waaye da ngeen ñàkk solo da ñàkk solo da ngeen di mel ne puuge ñax moom yi nga xam ne day day tag bu taw bi ñëwee yanu ko yóbbu nee na noonu ngeen di mel pas-pas ba dëgëratul xam-xam ba néew na bëgg yàlla ga bëgg yonent ba yeneen ngeen ko tëre yu bokkut ak yeneen alxuraan jàngaloon su boobaa da ngeen di doye doye di mooy lan mooy lu ñëw yóbbaale la xob yi woyof yooyu bu ndox mi ñëwee na mu koy yóbbaale su boobaa lu ñëw noonu la leen di yóbbaale jullit yi dem nañ ba yi nga xam ne moo doon ay sawaabit nga xam ne jullit bi dañoo jàppoon ne lii moom kenn mënu ko ko kenn mënu ko cee jële dem nañ ba yooye lu tuuti day ñëw jële leen ci nekk lu woyof nekk lu ñàkk solo ay musiba di am yu toll ne bàjjo kenn du ko yëg kenn du ko yëg dem ba jàmbaari lislaam yaa ñi liggéey ci lislaam ak ñi dem ba ndaw ñi sax xamatuñ leen far dem ba duutuñu leen xam xale yu ndaw yi boo leen doon laaj saxaaba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jëlale na nit ñu baax ñu ci des nga xam ne àgguñu ci saxaaba yonent bi ak dundam ak lu ca aju li ëpp ci ñoom xamuñu ko ndax fekk na dañ leen a tooñ yeneen lañ leen jàngal nga laaj leen yeneen yoo xam ne yu tekkiwul dara la ay footballkat ak ay dawkat ak ay tëbkat boo leen laaj laajee lu nekk mën nañ la ko caa jox ci xeeti détail lu tax mooy lee lañ leen xamal xamaluñ ne te xeetu lislaam lañ ay jullit lañ am nañ droit itam ci xam nag seen diine doye di ko mel noonu su fekkee ne foofu la xeet wi àgg dem ba ñu réyal leen fokkat tudde leen tur yu nekk ñu jox leen ay nujoom léeg-léeg ay ay fecckat ak i musikat ak i tëbkat ñu ne ñi ay star lañ biddiw la gën a kawe seet ñoo xam ne li ñuy def kenn xamul luy njariñam ci réew mi ñu seet turu la gën a rëy ci nun jox leen ko ay gaynde te yeneen yu am njariñ nga fi ay nit di ko def ay nit a ngi fi di jàng xam-xam yu xóot ay ingénieurs yoo xam ne dem nañ ci ay tubaab wala ci ay naar wala ay boroomi xam-xam yoo xam ne dem nañ ci ay tubaab wala naar jàngandoog ñoom raw leen man leen fuuf ñi dikk cëppeelu kenn yëgu leen te ñooñu jàpp naa ni ñooñ ñooy gaynde yi ki liggéey loo xam ne luy jëriñ réew mi la ci wàllu économie ñëw dugg ci biir réew mi di jëriñ xeet bi moo xam ci médecine la wala ingénieur la boo xam ne mi ngi jariñ nit ñi wala mu doon boo boroom xam-xam boo xam ne mi ngi jëriñ jullit yi ci yar ak teg leen ci siraatul mustaqim ngir ñu baax ndax mbëgalum yàlla bañ a wàcc ñooñu ñooy ñi kawe ci xeet mi waaye ñooñu dañ leen di suul kenn du leen yëg te ñooñu nag ñooy gaynde dëgg-dëgg yi ma ne ndaw ñi kon soxla nañ soxla nañ jamonoy tey ngir jullit yi mën a dellusiwaat ci seen diine mel niñ war a mel xam-xamul islaam ñu dundalaat ko jàngale ko mag ñi ak ndaw ñi góor ñi ak jigéen ñi nañ góorlu jàng ngir saafara saafara feebar bi nga xam ne moo nekk ci xeet wi su may wax xeet wi nag waxuma senegal donc xeetu lislaam laay wax xam nga ne béréb bële nga xam ne fële nit ña dajewoon bëkk démb di fo muy Égypte man jàppoon naa ne seen pomme danañ ko arrêté jamono yoo xam ne fenn fu nekk ñu ngi àndandoo di saaga yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñépp àndandoo kenn ku ne di jéem la nga mën a def sa kem kàttan ngir tontu nga nekk ci biirum po mel ne ku ko yëgul loola doyatul bato boo xam ne ay nit yu doon aji ñoo ca nekk junneeg ñeenti téeméer faatu ca nga continuer nekk ci sa po jàpp naa ne feebar bi ci biir xeet wi kon bu Sénégal rek waaye xeetu lislaam ci jëmmi boppam ñoom ñoo feebar kon mbir jar na dellusiwaat doyadi gi buñ ko gisee ci kanam nit ñi ba yéefar yéeg ñu sàggan ñeeg bandi yi yëpp xeetu lislaam ba lu leen neex ñu wax lislaam nu leen neex itam ñu def ko jullit ba àgg ci di doyatal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam loolu li ko waral mooy nun sunu doyadi noo sori yar bi nga xam ne moom la yonent bi yaroon saxaaba yi soril ko sunuy njaboot ak sunuy xame ba loolu amee yar boobu nga xam ne xeetu doomu aadama lay wax ne jariñu na ci ci dundu yonent bi ak i saxaabaam njariñ loo xam ne doomu aadama mus koo jariñu ci kaw suuf yar boobu nag bi ñu ko génnee ci sunug dund di dund yeneeni yar formé ay nit yuy xalaate neneen di jëfe neneen ci biir loolu ci la doye di dikke ci xeetu lislaam ci lañ sore seen diine ci lañ ñàkk a yeyoo itam ndimbal li leen sun borom tabaraka wa war a dimbali yàlla na sun borom tabaraka wa taala defal tawfiq bi tabaraka wa taala daf ne yéen laa def ngeen xeet nekk xeet wi digg doomu ëpp leen yéesu leen bu leen ëpp maanaam bu leen taral ba jéggi dayo waaye nag bu leen yées ba doon ñi nasax nekk leen ci digg bi wa kadalika jaalnaakum ummatan wasata ngir ngeen mën a nekk ñoo xam ne yéenay témoin xeet yi loolu mooy mbaax ci seen loxo la war a nekk ku ngeen ne baax na kooka dëgg-dëgg moo war a baax ku ngeen ne baaxul itam kooko dëgg-dëgg mooy ko wërta baax su fekkee mel ngeen ni ngeen war a mel ndax loola li ko waral mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci boppam moom moo leen di témoin yéen moo leen di seede ña baax ci yéen moo leen rëddal yoon wañ jaar ba baax ña ca baaxut itam ñooñu moo leen àtte ne baaxuñu mu jàngal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam foofu ne ko xibla bi nga nekkoon ma jekki ba mu yàgg ma ne soppikul jëm ca beneen ab nattu la boo xam ne li ma ci jublu mooy xam kan moo lay topp ak ku la dul topp ndax yonent bi alayhi salatu wasalaam diine mooy topp yonent bi alayhi salatu wasalaam kon jàngaat yonent bi tasaarewaat ay jikkoom mbaaxam ak dundam lépp ndaw ñi xam ko mag ñi dund ko ci seen kanam ñu gis ko loolu rek moo mën a xeetali xeetu lislaam delloo ko ci la nga xam ne mooy li borom bi tabaraka wa taala bëgg yonente bi alayhi salaatu wasalaam bëgg ko yàlla yàlla teral lislaam ak jullit ak fépp fu mën a nekk gindi jullit yi delloo leen siraatul mustaqim jubbanti leen may leen ak dégg diine te suñ ko déggee ñu jëfe ko wattandiku lépp loo xam ne luy dox seen diggante ak seen diine la fegal leen seytaane musal na ci lépp loo xam ne luy lor la def jàmm ci xeetu lislaam def ko ci sunum réew musal na ci lépp loo xam ne luy indi fitna la wala koy tasaare ak balaa bépp boo xam ne buy lor la mu fegal nu sabab ya koy indi ba noppi fegal nu balaa booba wallahu taala alam wa aqimi salaa